problème la ci dëkk bi. waaw affaire bi day soxib xañ na mën naa see bañ a sori lool. Mhm. waaye wax ma ci pour mbir ma mais ay ay fee yu demee noonu. tey moom fee nga jël. waaw yu demee noonu. xaj na moom boo ko bàyyiwul moom macha allah. waaw fee yu demee noonu. bu dee nga jël si affaire fee ak sa xel. waaw du mbirum agression du mbirum bandité. ah oui waaw. maanaam du agression du banditisme. dii nag bu si yoon defee liggéeyam ba topp ko. Hmm. ba xool ay téléphone ñu mu daan jokkool message yi mu daan jot ak nangam ak nangam. da nga ci xaw a ñaaw njort leneen daal. waaw bu boobaa su fekkee yoon def na liggéeyam ba pare danga ci dégg ñu ne xaman ñu mu xamanteel la wala ñoo xam ne dañu a yabal wala wala wala ndax tey jii bët bu set son yi ba si tuubaa gi feneen ak feneen da ngay gis ñu tëdd bu guddi ay bandi dajji ak kër. Hmm. yor seeni fital kagule def lépp bu ñu ñëwee këlfe bu fekkee waa ji nekk fay jéem a xeex moom dañ koy yeew ne ba sàcc li ñuy sàcc ba pare ni ko boo déggee nga yuuxu dañ lay rey. Uh-huh. dem seen yoon. Uh-huh. dégg nga la mais duñ la rey. Uh-huh. dañuy ñëw sàcc sa xaalis sàcc sa alal dem te fii ba léegi déggoo ñu ni sàcc nañ fa alal. déedéet. ni nga dégg ñu rey nañ ko. waaw kon ñoo ñu la leen taxoon a jóg xaj na loolu lañ ñëw def dem seen yoon. waaw ah, muy jël ba kanam. mais waaw waaye duñ duñ ay sàcc yoo xamante ni nangam loolu nag ay ay kii la ay fee yoo xamante day am ñaare bu doon ay agresseur wala ay nangam ñoo xam ne xamuñu ko xamu leen xañ na duñu dem bëgg a sàcc dañuy fexee dem ba sa appartement am ñu yeew ko sàcc dañuy sàcc dem seen yoon wala ñu dóor ko wala ñu escorte gémmiñ gi wala ñu yeew ko ah. waaye ñi nga xam ne ñooñu bunt ba dem seen yoon loolu moom bis bu si yoon defee liggéeyam ba def si liggéeyam yaakaar naa da nga si dégg loo xamante ni dana la jaaxal lool ah. waaw loolu daal laa si am na ñu naan itam est-ce que du vidéo bi doon def tour ci réseaux sociaux yi eh, gars yi dañ ko mere ndax bi ñu rayee xale boobu Pikine bokk vidéo bi bokk na ci bi gën a siiw mooy bi mu naan ku war ku rey dañ laa war a rey dañ ko war a appliquer ci réew mi. Mhm. maanaam vidéo boobu est-ce que du dañ moo xaw a am ñu metti non ba loolu du loolu du ku rey dañ laa war a rey moom yaakaar naa ñëpp ngi koy wax. Ah. te ñu fi yaakaar naa réew mi fi mu toll nii koo gis ñu ni rey nañ ko. Hmm. am na kum am am lu xew daal ah, am na lu xew loo xamante ni moo tax xañ na loolu am mais nit ñi moom duñ la gis rek ngay dem jàpp sa mor sa njàmbur ñu ñëw rey la xamuñu la xamoo la ñu rey la wala nga tëdd sa kër di nelaw xamuñu la xamoon na ñu ñëw ray la mën nañ laa agressé nag mën nañ laa duma mën nañoo nangu say bagage mën nañoo man te yooyu yëpp boo nangoo ba si agresseur bi tase ak yow si mbedd mi bu génnee jaay si laaj la li nga yor nga jox ko bu noppi dalay bëmax uh-huh. nga demal du la laal mais boo xeexee moom dalay ray wala mu jam la uh-huh. kon daal nañ ci bàyyi xel bu baax te bàyyi yoon mu def liggéeyam uh-huh. te it ñi nga xamante ni gis naa ñuy taxaw di leeral ñoo yoon woo leen bu ñu demee mën a gën a leeral ñu nekk Sénégal ñu leeral si bu baax a baax yoon mi ngi xool internet bi ñuy leeral waaw na police xool internet bi bu ko defee koo xamante ni toog na naan benn suur nangam wala ñu ni nangam bi gaay egsee nangam na yoon woo bu ñu demee ñu leeral ko yoon ndax loolu yoon da koy soxla ah, ok hmm. ak ki naan wokkaaloon ngi ñu laaj lu ngeen doon wax bu ngeen di wokkaal yooyu d' accord ah, dafa mel sax Modou mi ngi naan ma enquête bi jëlee nañ ko ci euh, ki ko yoroon commissaire bi ko yoroon dafa mel ni jox nañ ko ñeneen pour rek gën ko euh, kii alaaji hmm. manque de